diggu màggal gile fondation bu port autonome bu ndakaaru dal dina fësal boppam ci gox yu fasantikoo ci Touba ay kibam dal dinañ wàllu ay nit yu nekk ci mbënd mi waaye itam ñu néew doole jox leen ay denrées de première nécessité yu ci mel ni ceeb diwlin ak yu ni mel di loo xam ni njaboot yi lee daal dinañ ca kontaan lii di lu am solo ci ñoom. lii nii maa ngi wax xaaral jóg di ko wëri ci xaw ma koy wëri ji kon nag ginnaaw toog naa sa sama kër gii ba yàlla tenk indil ma ko fii maa sant di leen ndax man de jóg di wëri sax du saay mbir xaw te jaaxle naa jaaxle boo xam ne nii ci màggal bi ak la ak nekk na luñ soxla lool waaw. sant nañ bu baax a baax a la si ñun mbënd mi dund waaw ndox mi bari sonn nañ jëf ñi jëf yàlla a fay te yàlla dina leen fay ak ak yonent bi seen Tuuba yàlla seen sama xol seet na lool yàlla seen aajo fay seen bopp seen aajo yëpp yàlla fay ak seen Tuuba ci activité ma fondation bu Pawoto bu fàttewul benn yoon njàngaleem diine mi lim bu takku ci ay daara dal nañ jot ci xewal yi lee fii ma nekk nii wallaay azim li ngeen ma jox nii sama xel dana si ñeewantu lool ci ñaar téeméeri sin daara yi ma jiite ak fanweer ak nangam yi nga xam ne ay sin daara leen nekk ay parents d'élèves yoo xam ne ni eh, nekk association boo xam ne bu am récipice bu mag la di gërëm bu baax di remercier waa fondation koroote na bu Dakar ci jiite si Mountaga si mi ngeen wax noonu liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen ko def ngir màggal gi këru diine yi desuñu benn yoon ginnaaw xalif général des mourides ci yor kàddoom xalif bu Serigne Béthio ñoom ñëpp daal dinañ jot seen wàll naka noonu itam xalif général des Baye Fall Serigne Amdi du Mbenda Fall daal dina ñaanal délégation bu fondation bu port autonome bu Ndakaaru ndax liggéey Sëriñ Tuubaa. nee na liggéey boobu da koo jox ci Ibrahima Fall. kon nag yéen ñi nga xam ne jël ngeen seen alal def ko ci. yàlla na barkeel. yàlla fay leen. jëf jile daal dina wëy ci mbeddi Touba mu di loo xam ni dana jëriñ bu baax ñi jóge fu ci réew mi. janam bile la fondation bu port autonome bu Ndakaaru dugalee loxoom ci grand magal bu Touba bi